dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy ci jàngoroy coronavirus ji nga xam ne mooy lëmbaaje jamono ji àdduna bi journalub groupe promo consulting bi di dem di wax sax ne jàngoro ji nag daan nay lëmbaaje àdduna bi dem ba gañe li nga xam ne mooy terrain bi ndax nag Chine lu toll si ñetti junni yu fegg téeméer ci ay nit yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan diwaanu Iran lu toll si ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñaara bu dee nag France lu toll si ñaar fukk ak benn ci ay nit daan nañ say faatu Corée toll si juróom fukk ak ñett ci ay nit Italie lu toll si ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ci ay nit bu dee nag Japon lu toll ci fukk ak juróom ci ay nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ak yeneen réew yoo xamante ni ñam fa dal jamono ji nag daat nay bari loola yéen a gii di réew mi ko di mu ñu xamalaan ñu Sénégal nag am na benn cas boo xam ne daan nañ ko si faj lu toll si juróom benn ci ay nit ñoo xam ne ñooñe nag dañoo njortoon ne amee nañu jàngoroy coronavirus ji ginnaaw nag bi ñu leen sayto nee nañu nag ñooñee daal amuñu joojale wopp yéen a kaay gii di ñu fekk fa professeur Moussa Seydi moom nag la mu nee na Sénégal daal bu naagoo ba wàcce loxoom nag bañ a fagaru li dal Italie mën naa dal Sénégal ba tey ci biir yéenekaay gi mu xëy wax ci lu jëm ci wàllum njàng mekk njàngale mi ñu nekk ci njàng mu kaw mi di waa SAES e ñoom nag jamono ji mer nañu ba maara day taal yi Cheikh Omar Anne la ñu daal di mere moo tax nag ñaari fan yi grève yoo xam ne dañu koy daal di amal bu dee étudiants yi nga xamante ni ñoo nekk sa Ziguinchor ñoom nag ab grève illimité la ñu daal di tekk la bokk na si jafe yi nga xam ne maanaam moom la ñuy dund ñoom nag jàpp ne sax gi jamono ji daal maanaam da leen di fowe yéen a kaay gii de la mu ñu xamal na ñu Macky Sall nag ñeenti at rek moo ko desee ci bopp réewum Sénégal waaye nag bëri na ñoo xamante ni daal jamono ji dañu koy daal di yàqal ku si mel ni mbay Ndiaye Baara Ndiaye ak mambay Mbaye ñi daal bant bi nga xam ne Macky Sall fi la toog daju fi bant boobee nag la ñooñu di gor li nga xamante ni nag moo yàqaloon parti démocratique sénégalais yàqaloon parti socialiste jamono ji nag mooy raamte soo mooy tuule nag maanaam dina yàq parti bi nga xamante ni mooy APR ndax nag defante ba ma ngi mel ni tulleeg màlle ay nit jóg di tuumaal ay nit ñoo xamante ni ñooñee bokk nañ si ñi sos boobule parti yéen a kaay gii de suñu fekk fa Amadou Ba moom nag daan na yëkkati kàddu jóge ci noppi gi nga xamante nag noppi woon na ko ndax yàgg nañu ko tuumaal ne dafa am ay ambition présidentielle moom nag la mu xamle daal nee na tànk ma ngi gagné confiance Macky Sall te Macky Sall moo ko def loo politique maanaam dafay wéy di kat amal journal bi mu ñu xamal lan ñu en tout cas kay Amadou Ba li ñu koy tuumaal moom mbir moomee nag dafa mel ni daf ko daal di ñàkkal fayda yéen a kaay gii de la turbine xëy nag dikk ci Ousmane Sonko ak noppi gi nga xam ne maanaam moom la noppi Ousmane Sonko Sonko nag dafa daal di découragé wala nag ab stratégie jamono ji nag moom ci la daal di nekk yéen kaay gii di réew mi quotidien ak laas ñu fekk fa nag Abdoul mbay moom mi fi nekkoon ay jamono premier ministre bu Sénégal daan nay wax nag ci programme bii nga xamante ni daal mooy programme mu acte maanaam partem boobu jëm ci wàllum artisanat ak nan lay def ba mu soqali réewum Sénégal nee na programme moom boobee nag moom la Macky Sall daal di jël daal di kay ngembale ngar daa jooko moom Abdoul Mbaye nag daal di wax ne Macky Sall ci boppam jamono jii ñëpp mën nañoo seede ne gëmatul plan Sénégal émergent ba tey ci biir yéene kaay gi mu ñu xamal nañu wopp ji di coronavirus loole nag daan nay tax bari lu pétrole bi daal di wàññeeku ci àdduna bi moo tax économiste yi ci réew Sénégal ak syndicaliste si ñoom nag dañoo jàpp ne jamono ji courant bi njëg gi dafa war a wàññeeku ak nag njëgu carburant bi loolee lu mënatul ñàkk la journal bii di réew mi quotidien xëy ci Mamadou Diop ISEC ak li ñu koy tuumaal ne dafa tëddee benn xale bu jigéen ba mu jëlee fa ëmb jamono ji nag ma ngi ci loxol yoon journal bi nee def nañ nag li nga xam ne mooy test ADN yi xool ba xam xale bi nag maanaam moom moo ko ëmbal waaw wala déet journal bii di Libération mu ñu xamalaan ñu Diop ISEG ma ngi ci ab garde waaye nag la nga xam ne daal enquête bi wanee gun na ko maanaam daan na say tax ripp maître Ciré Clédor lii mi nga xam ne moom mooy na ba la mu xam nag nee na jamono ji lobby yi nekk ci réew mi yépp ñëw ñëw nag maanaam di jàppale Mamadou Diop bëgg a sànq xale bi nga xam ne moom mooy jay Dieynaba journal bi di 24 heures mu xëy yóbbu ñu diwaanu Fatick mu ñu xamalaan ñu waa Fatick nag ñoom nee nañu dañoo fatigué ba maana day taal yi ndax nag ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi amuñu liggéey liggéey benn ba fa am daal ci ndaw ñi mooy dawal Jakarta seen yaakaar ci boppam moo tas yéenekaay gi nag daal xëy wax ci Guinée Bissau gi nga xam ne maanaam ñoo ngi koy seetaan waaye nag soo moytuwulee daal maanaam musiba ma ba kumba saa su nekk mën na faa am Assane Samb moo ni gisee ak fam ko teg daan nay koy xëy wax ko ci yéenekaay groupe promo consulting bi stade yéenekaay mu ñu xamal laan ñu Paris Saint-Germain nag tey jii dana daal di dalal Dortmund ci lu jëm ci Ligue des Champions waaye nag match boobee benn supporter ko daal di fekkee ndax jàngoroy coronavirus ji yéenekaay lañu nag waa CNG Aliou Sarr daanay jël ay daan yu méttee métti lal ko si ndoddul arbitre yi nga xamante ni maanaam ñoo demoon ab grève journal bi nee na Malick Ngom ak Babacar Diop ñoom nag lu toll si juróomi at yoo xam ne maanaam dañu leen ko suspendre Aboubacry jaw moom lu toll si ñaari at lañu ko daal di suspendre bu dee nag Sitor Ndour moom nag daan nañ koy wax mu tekki ndom ba tànkam ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum arbitre ci ak dundam maanaam dañ ko suspendre à